waaw loolu laa lay expliqué y' a pas de dette li ma lay wax. non waxu waxuma waxuma électricité. donc électricité je te dis que mën nañ ko redresser sans problème. léegi dette bi bi bi bi bi. bi nag moom je pense que dette bi on aura un gros problème il faut renégocier. renégocier la dette. waaw il faut renégocier la dette euh, parce que déjà soo indee sa apportu ressource naturelle tu as de la valeur supplémentaire. inventaire ressources naturelles yëpp yu ñu am dañ ko war a def yóbbu ko assemblée nationale ñu acté ko c'est ce qu'on appelle la certification des réserves Sénégal mooy réew moo xam ne xamuñu lu ñu am yow lu mu gàtt gàtt sa kër xam nga li nga am boo jëloon temps di nga xam bu ci nekk ban valeur la ñun xamuñu lu ñu am 2012 bi ñu nee dañuy signé Petrotim ñu ñoo nekkoon secrétaire général ministère quand le dossier est venu j'ai dit on signe rien du tout je suis allé voir Karim je lui ai la ñu nekk 2010 2011 ñu ngi jëm 2012 yow certifié woo sa réserve nga bëgg a signer contrat alors que aujourd'hui techniquement les ressources pétrolières dafa évoluer ba nga xam ne y a des sismiques 3D yaa am na boobu sax benn bateau bu fi ñëwoon boo xam ne presque day scanner suuf si xam fan nga war a gas bu njëkk ba da ngay dépenser beaucoup d'argent man leen tu signes pas tu certifies les réserves d'abord boo certifier réserve ba pare nga négocier en connaissance de cause ki nga xam ne da koy exploiter mën nga ko fay après et j'avais demandé à Petrosen ils ont contacté des société c'est dans les rapports sociétés yi def ñu proposition nañu bu leen signer dara on certifie les réserves on renégocie et c'est pour ça que ça n'a pas été signé ñun en tout cas man dama jége-jége rek ci presse bi 2015 ma dégg ne signé nañu janvier ñoom ñu ñëw signé waaw parce que justement euh, dafa am position yoo xam ne boo nekkee patriote gëm sa réew xam li xew euh, soo tëddee sa biir ne seetaan ko parce que simplement da nga ragal ñu critiquer la wala da nga ragal ah ñu jiiñ la ne euh, da nga da nga da nga far fii wala da nga far fee kooku da koy layoo. mais renégocier la dette. déglu rek léegi boobu ma wax c'est très important. bu ko PTF euh, bañee rek parce que ci bi ñu génnee. renégocier bi mooy euh, le président il a pris euh, beaucoup d'initiatives allant dans le sens dans le sens de reconsidérer de renégocier de l'effacement les gars n'ont pas accepté. non non non moom c'était une opération politique. et na pas accepté de nee nañu nañu fay. effacement moom effacer dette bi moom. Ah. c'était une opération politique. qui n'a eu aucun sens n'a pas eu d'effet parce que loolu boo ko defee tu te mets dans une position de faiblesse boo xam ne surtout si tu n'as pas de chemin alternatif ñoom bi ñuy def effacement de la dette ay chanteur la ñuy jël ñuy wër di wax affaire effacement de la dette ñoo ñoom day erreur def erreur de communication ça a été très mal perçu d'ailleurs dans le milieu financier international on dit mais ils sont tombés par la tête loolu ça ne fait pas mais de renégociation tu la maturité de la dette délai la dette a servi à financer quoi et comment tu peux faire des ñoom fi ñu toll nii amuñu sax capacité de négocier parce que boo demee bay am ay taux 7 pour cent di leb ay 100 milliards ah ay ay échéance un an Sénégal kenn lebalatu ko à long foo dem dugg ñu ne la eh saa yi ministre des ministre des finances bi lay jaar na. sax dégradation de la signature mais bien sûr mais une dégradation terrible de la signature mais xoolal ma waaye fan nga kañ nga gis benn dette à un y a que des appuis des appuis. du du du du du FMI comme sa ay 160 milliards tu vois ce que 160 milliards dans un pays qui a un budget de 7000 milliards donc ñoom dañu sonn ñoom li ñuy ñoom ñoo gën a xoox ñëpp c'est vrai que ñoom yàkkamti nañu jël pouvoir bi joxe ko parce que xam nañu ne lii mënul dem mais en même temps ragal nañ joxe pouvoir bi parce que yaakaar nañ bu ñu joxee pouvoir bi gars yi ko jël dañ leen di dibi <laughs> donc pour man c'est ça c'est ça il faut calmer les gens leur dire que y a des gens responsables dañu leen di dibi waaw yow boo boo jëlee pouvoir da nga leen di dibi man ma dibi kenn non jamais de la vie man loolu bokkul sax man li may njëkk a def mooy lii gars yi ba réparé ko hmm. jagal mais 14 mesures jagal ba pare nag appliquer sama programme bi mhm. boole Sénégalais yëpp jibóole leen mhm. ku nekk li nga mën ma jox la ko a ñu liggéey